هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm xam naa comme temps bi dem na rek fi doon ni ay vingt-cinq ci arab bi rek alhamdulillah والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله الأعلام الهداة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جناب خليفة صاحب الفيضة wa xaadimi al umma maali imaami al a'immati cheikh Tiyaani cheikh Seydi Ali Cissé xadrata naatiqi rasmi lil xadrati al ibrahimiya sayyidi ustaadi cheikh Mouhamed al Mahi Seydi Ali Cissé siyaadata raisi lajnati saqaafiya cheikh Mouhamed Siraaj Diin cheikh Ibrahim Niass assaada al ulamaa wal wufuud al qaadimatu min shatta biqaa'i al ardi al ixwatu wal axawaatu fillah ahbaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa baad baadi yadi bad'in uqaddimu axlas altahaani ila alummati alislaamiyati wa ila hada aljamci alkarim alladi taxtadinuhum تدينهم مدينة الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه إخوة متحابين في الله احتفالا واحتفاء بذكرى ميلاد رسول الحق ورحمة الخلق شمس الهداية التي أشرقت في شهر ربيع الأول فكان ميلاده ميلادا للبشرية وعيدا للإنسانية وموعدا سنويا تنتظره الأرواح المحبة والقلوب المؤمنة وكان الشيخ إبراهيم في ذلك أعظم قدوة لنا وأعلى أسوة وظلت مدينته هذه ملتقا عالميا وروضة محمدية يجني منها المحبون ثمرات المحبة wa taalu almadinatu bi tilka alnafaxaati wa tanmuu bi tilka albarakaati wa tasri ilayha asraaru almadinati almunawarati saraa laha sirru madinati alnabi xabasaha tanfi bila tarajubi man kaadaha falaysa daa bidaa'irin jara duyulaha ala alxawaadiri liannaha madharu faydi alxaatimi fiha rijalun dawquhum kalxaatimi ayuha alsaada alkiram inna xadiisana fi hadihi alleylati almubarakati سيدور بمشيئة الله تعالى حول مضمون قول الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث فحياة الشيخ إبراهيم الغالية كلها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنتاجاته الأدبية ودواوينه الشعرية معظمها تصوير, تصوير لهذه المحبة وشرح مستفيض لمتعلقاتها الحسية والمعنوية wa tajalliyaatiha wa tadaaciyaatiha fa waqtii wa saacaati saraftu li dikrihi salaatan wa madxan minhu qad sirtu jaylama fa wallahi maa fi lqalbi xadun li gayrihi fa gayru rasulillahi laysa li taclama wa hadihi almahabatu tatacadda madaahiruha alxuduuda adduniyawiyata litadhara athaaruha fi carasaati alaaxirati laka alcahdu minni ya rasulu fa innani uxibuka xata xiina fi lqabri udfanu متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشجو بالثنى وألوح وقد استرقت هذه المحبة جميع أطوار حياته وهيمنت على صائر حركاته وسكناته وظهرت بركاتها وثمارها فيه وفي أهله وأتباعه بحب رسول الله سادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى ذمامي ويمكث كما سرت بركات هذه المحبة في مدينته العريقة فيقول بحب رسول الله تعلو مدينتي ala almudni wal amsaari wal xayru yaxdusu bi xubbi rasulillahi taalu manaarati manaarati malkin aadaka dahra yankusu wa laysat hadihi albarakat qaasiratan ala almadinati waxdaha walakinaha shamilat marakis alcheikh aluxra wa marabicahu allati tashhadu ala sidqi tilka almahabati wa cumqiha wa muanaati alcheikhi wa mukaabadaatihi laha fa yaqulu radiallahu anhu qusuuri madina shaamu kuusun wa taybatun wa kawlahu qad taxyaa bi dikri alladi kamul كما انعكست بركات تلك المحبة في مسجده الميمون المؤسس على التوحيد والإخلاص والتقوى مقام إبراهيم من دخله كان آمنا بهداه مسجد إبراهيم أسست بالتقوى وأرضك لا تأثيم فيها ولا لغوا ويقول الشيخ إبراهيم في حق هذا المسجد وهو بصدده التوسل بحبيبه وممدوحه صلى الله عليه وسلم عليك صلاة الله ثم سلامه لتقبل بنياني وتعليه مسجدا alayka salaatullahi summa salaamuhu li tarfaca man yucli binaahu wa tuscida wa yawi lahu kullu lmasaajidi waxmihi min almuxdadaati suudi li dikri sarmada wa tajmacu fihi alxayra walcilma waltuqaa ila abadi alaabaadi lam yalqa mulxida yasiru bina naxwa altaqadumi daa'iman bi diinin wa dunyan baahira sirri mufrada alayhi salaatullahi summa salaamuhu madinatu tabqaa macqila alamni walhuda kama saraxa alcheikhu radiallahu anhu bi annahu damina li rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam baqaahu fi sardi madaixihi wa anna almadinata taclu ala gayriha min almuduni walamsaari bi barakati amdaaxihi fa qaala radiallahu anhu damintu lahu maa cishtu sarda madaixi sarda madaixin biha tactali misri ala muduni saalumi kama baatat tilka almadaixu li janaabi nabiyi alkarim sal allahu alayhi wa sallam جيشه الحامي وعدته الكافية حيث يقول في هذه المعنى لما وجدوا عندي juyuushan wa uddatan wala naasiran indi siwa siwa dicri haachimi waqad jana waqad jana talaamidatuhu alsaalikuuna thimaaran xaasatan li hadihi almahaba wa minha ala xaddi qawli cheikh wusulu jamici almaasikina bixabliya taxaqaqahu man lam yukadib bi rabbiya wa atwi liman qad xabanii kulla mahmahin ila alxadrati alcaliya walaw kuntu raamisa tawaytu wa sahaltu altariqa ila alxaqi li kulli muridi alwasli lilxaqi bilxaqi وقد ورد الثناء على أمداح الشيخ إبراهيم في رسالة وجهها إليه الشيخ أحمد سكيرج واحتساب أجرها من الله تعالى وجوائز من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرير على أن ذلك عادة الممدوح مع مادحه فما بالك برسول الله, برسول الله الكريم ومن ذلك قوله الحمد لله والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حضرة فس الختم وسر الكتم aljaamia bayn almaqamayni alxalifat almuazzam walmuqaddam almuazzam sayid alxaaj ibrahim ñas taabat lakum alnufuus wal anfaas wa aleykum alsalaam wa ala man huwa minkum wa ilaykum min ixwatin wa ixwaan wa anjaalin wa ahlin wa ahbaab fi sirrin wa iclaan wa naxnu minhum wa ilayhim wa hum minna wa ilaynaa wa kulluhum minna sawaadu alyuun kawwana allahu minhum maa yakuunu wa nahnu ala mahabatikum jamian ila liqaa illahi fa in fa in almahabata iksirun tajburu lkasir wa tafukku l asir fa kaanat taatuhu min taatihi wa mahabatuhu min mahabatihi wa matxuhu min matxihi fa saraftum bitawfiqi lilahi nafisa awqaatikum bilsanaa'i alayhi wa dalika min ashrafi alcibaadaati almuqawami fiha bima yaxbitukum alayhi muddaaxu xadratihi cinda tilawati dalika bayna yadayhi yowma tajidu kullu nafsin ma camilat min xayrin muxdaran ولا شك أن الأقوال من الأعمال وخير الأقوال ذكر الله ومن ذكر الله الثناء عليه وعلى رسوله فإن الثناء من نتائج الصلاة والسلام عليه عليه السلام إلى أن قال وقد زاد انشراح صدري بما وفقكم الله من جعل القصائد المحمدية التي قلتم فيها في هذه الأيام دواوين فلا شك أن كل بيت منها تستحقون عليه جوائز من المقول فيه wa fi xulafaaihi alladina lahum bi dalika ziyadatu xubbin fihi bal ahabakum ahabakum allahu xiina stafaakum lilqiyaami bi matxi xabibihi fi zamanin qad ishtagala fihi kullu di nafsin bi nafsihi fi ma shagalahu xata an rabbihi fa lillahi alhamdu ala ma alhamakum wa naxnu narju an yakuna lana silatun minhu fi dimni imdaadikum bi jawaa'izihi nafisa ala dalik faqad ictaada maadixuuhu bima cawadahum minha fa tib nafsan wa qarra aynan فلك البشارة وأنا معك بحول الله ومما ورد في مدح المدينة وتعداد مناقبها وفضائلها قول الشيخان رضي الله عنه ليت شعري أنا أحب سواها وفؤادي بحبها مستهام وإليها كم ظلت أطوي الموامي بزفوف لها الغرام خطام أو سفين تفري الدجى بعيون كبروق لرعدها إرزام فعساني بتلك أبلغ مأوى وملاذا به يطيب المقام علني من مدينة أدنو دنوا فيه للنفس منية ومرام إن روحي ومنشأ الروح فيها وهي لي عن كل المواطن شام ويقول رحمة الله تعالى رحمه الله أيضا نوبتي من مسرتي ليت شعري هل لنا منك آنفا أن تعودي فنرى الليل مثل ما قد أعدنا ليل عرس ويومه يوم عيد حيث كنا لدى مدينة جموعا نذكر الله بين بيض وسود في شهور أيامهن ربيع طالع في البروج سعد السعودي حيث فاد الخليل منه علينا بدنو من الكريم المجيد وهذه القصيدة رائعة في ذكر بعض معاني شد الرحال إلى مدينة الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه مع وصفها ووصف حال الشيخ وتلامذته في رحابها وذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي للشيخ ولد مشري شدوا الرحال إلى مدينة وجاءوا يحدوا ركابهم هوا ورجاء يحدوا ركابهم ووافد وفد وفدهم حادي الهوى إن الهوى حداء تركوا الذين وراء ظهورهم ولم تعدلهم الأموال والأبناء نفروا خفافا لا ترين قناتهم ظلم الفلا والبحر والبيداء يطون أشرة الرمال وملؤهم يا للرجال عزائم صماء دوارة بالذكر ألسنهم لهم فكر إلى سر الصفات ظماء فكر تغوص الذات غائبة بها فتردها لمجازها الأسماء واعجب لهم ضدا بضد إذ يشاطرهم بقاء مطلق وفناء هذه مراتعهم وتلك ديارهم يسعون في الكونين أن شاءوا الله أعلم كي كم يثير بفكرهم هذا اللقاء وهذه الأصداء والشيخ يبسم والمنصة والعصا والذكر والأمداح والأضواء والتوأهات والمسرة والهنا والحمد والخطباء والشعراء ومنارة خضراء عانقت السماء فأضاءها منه سنا وسناء وأحبة فوق المنصة حلقوا ومقاعد وعمامة بيضاء يا ليلة وافى الوجود محمد يا ليلة وافى الوجود محمد في فجرها نفسي إليك فداء نفسي الفداء لمن أذوب لمدحه وتهوز قلبي لذة وصفاء هذا وما ورد في أقوال الشيخ إبراهيم مما يدل على على الأثر العظيم الذي تركته محبته وأمداحه في المدينة وساكنيها وفي الفيضة وأهلها فلا يسهل الإحاطة بجوانبه وكذلك ما خطته أقلام أصابعه ومقدميه في نفس الصدد ولكن كل ما سقناه عبارة عن شواهد شواهد نستأنس بها للحديث عن هذا الموضوع الفياض على سبيل المثال لا الحصر ويبقى الكثير مما ينهض دليلا دليلا واضحا وبرهانا ساطعا لثمرات محبة الشيخ إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدائحه فيه وآثار ذلك في مدينته التي تجر ذيولها على الحواضر الكبرى في جميع الميادين ورجالها الذين تساوي أذواقهم ذوق الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحاتمي radiallahu anhu je ne pourrais m'étendre outre mesure en français je vais résumer seulement en en cinq minutes peut-être le le thème qui m'a été euh, donné par notre oncle le président de la commission culturelle Cheikh Sirajuddin et le vers suivant bi madinati bi hubbi rasulillahi ta'alu madinati ala al mudni wal amsari wal khayru yahdusu Cheikh Ibrahim dit que par son amour Pour le prophète Mohammed sallallahu sa cité, Médina, s'élèvera sur toutes les cités et le bien va y régner. J'ai dit dans mon propos que Cheikh Ibrahim a fait maintes fois dans ses écrits l'éloge de Médina Baye, mais aussi euh, l'éloge des résidents de Médina Baye. Il dit dans la Rihla Konakriya que Médina Baye est le centre du euh, secret de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu l'imam de la Fayda, euh, faisant référence à lui-même, Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Il dit aussi à propos des résidents de Medina Bay que qu'on y trouve une élite dont le goût gnostique est comparable à celui de Ibn Arabi al-Hatimi, celui-là que même Cheikh Ahmed Tidiane surnomme Cheikh al-Akbar ou, le grand maître. Mais j'ai aussi dit dans mon propos que nombre de savants musulmans, dont les savants mauritaniens, ont fait l'éloge de Medina Bay, dont Cheikh Hani, que j'ai cité, dont j'ai traduit deux de ses, poèmes, euh, dont l'avant-propos ou le prologue, Amoura, il fait une sorte de ghazal et débouche sur Medina Bay en, dit, en se rappelant l'âge d'or de la Faïda où les disciples de Cheikh Ibrahim étaient ensemble, oubliant toute notion de race, noir et blanc, unis devant l'essentiel, faisant le zikr et adorant Allah sous la houlette de leur maître, Cheikh Ibrahim. Ta'ala Cheikh Ibrahim aimait tellement cette cité, mais il l'aimait encore plus quand le croissant lunaire de la, du mois de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était aperçu. Comme dans la Rihla qu'on a créée, il dit Mon cœur s'attache à maintenant que le Mawlud ou la, la célébration du Mawlid s'approche. Qalbi dawamam bi Medina arqubu shahr al-habibi iz arahu Il dit aussi dans, la, dans sa première nuit, dans la première nuit qu'il a passée ici à Medina le 15 du mois de Shaban, il a prié pour que Allah peuple notre Médina par une communauté ancrée dans la sunna par des savants des saints, des gens pieux, des gnostiques, des musulmans, des musulmanes, des croyants et des croyantes, et que tu protèges par ton œil qui point ne somnole, garde-nous sous ton ombre que nul ne saurait franchir, introduis-nous dans ta voie droite, sauve-nous des chefs qui errent et qui se complaisent dans la tromperie, ainsi que de leurs ouailles et souteneurs, ne nous compte point parmi les gens que les basses pulsions tenaillent, guéris-nous des maux qui les assaillent et de nous un pour les pieux. C'est cette prière-là que Cheikh Ibrahim a ficelé lors de la première nuit qu'il a passée ici à Medina on pense vraiment on peut dire sans nous tromper sans risque de nous tromper que cette prière a été exaucée dans plusieurs parties de ces dawawin de ces recueils de poèmes il prie pour Medina comme dans la lettre Jim du diwan Nurul Haq ou la lumière de, du réel que nous avons traduit en français où il prie alayka salatullahi suma salam demandant à Allah de pleuvoir sa grâce et ses salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de bénir, de bénir ceux-là qui élèvent les murs de la mosquée de Medina Baye et de faire de, de cette mosquée un phare pour toutes les mosquées, que cette mosquée-là nous, qu'Allah y réunisse le bienfait, la crainte révérentielle et la droiture et que de toute éternité, Allah la protège des, des, des irréligieux. Que cette mosquée nous mène vers le développement spirituel et matériel yasiru bina nahwa taqaddumi daiman bi dunien bi diinin wa dunien bahira sirri Moufrada Cheikh Ibrahim fait toujours le lien entre le développement spirituel et le développement matériel il se rappelle toujours de Medina Baye et il a la nostalgie nostalgie de, de, de quand il parle de Kaolack il parle de Medina Baye même lors de son périple de 1963 alors qu'il a euh, ce, ce périple qu'il a mené jusqu'en Chine jusqu'à Karachi il disait wa Kaolack tat'u qad c'est comme si la langue de Kaolack me disait Ailleurs, dans, dans, dans la Rihla Conakry, il dit Le jour même où j'ai quitté Conakry, dans le but de rallier Médina, la demeure de perspicace, nulle ruse ne saurait l'atteindre. Elle traîne ses pans sur les, sur les métropoles, car elle est le, le, le lieu d'apparition de la faïda, du sceau. Y vivent des gens, des gens qui sont ancrés, qui sont dans la gnose, à l'instar d'Ibn Arab al-Hatimi. J'ai retrouvé dans euh, les archives de Cheikh Ibrahim beaucoup de documents qui prouvent que vraiment à Medina toujours une élite qui trône au fait de tous les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai retrouvé, par exemple, une note manuscrite de Serigne Ousmane Diaye qui euh, retrace euh, la discussion qu'il a eue avec le prophète Moussa alayhi salam. Tout récemment, j'ai vu euh, une note manuscrite, euh, une lettre envoyée par le Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu au Cheikh Ibrahim. Et dans cette note, il, il lui raconte une vision spirituelle qu'il a eue euh, euh, par devers laquelle il a rencontré le prophète Isa alayhi salam. Et il y a un saint qu'il a vu dans une assemblée qui lui a dit soit annihilé et soit le digne héritier, soit le digne héritier d'Ibn Arabi al-Hatimi. Donc quand Cheikh Ibrahim dit qu'à Medina on rencontre des saints qui sont à l'instar d'Ibn Arabi al le grand maître, vraiment, les preuves sont là pour en attester. Et pour, pour conclure, nous avons aussi retrouvé une lettre de Cheikh Mohammed euh, al-Hafiz Ibn Faten, le grand-père de Cheikh Hafiz al-Nahwi. Euh, il est célèbre On dit même que sa main droite était plus longue que sa main gauche du fait de serrer la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a retrouvé dans les archives de Cheikh Ibrahim une lettre dans laquelle il demandait au Cheikh Ibrahim de, lui briser tous les voiles qui le séparent de, de, prophète Mohammed. Il ne veut pas passer une seule journée sans voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et on raconte qu'il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa constamment. Donc on sait qu'il parle sur autorisation divine tout ce qu'il nous a dit il suffit de creuser pour voir et constater de visu que tout ce qu'il nous a dit est vrai qu'Allah accroisse notre amour pour Cheikh Ibrahim qu'Allah nous guide dans la voie droite wa ma dalika ala allahi bi aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm